salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu maa ngi nii doomu Kaolack dëkk ci Kaolack gis nga man bu may dem yoonu Kaolack may dawalal sama bopp te yàgg naa ko wax xool leen bu baax li Malien yi di def chaque jour ma joytu ko xool leen fii Malien yi tey ci kaw benn taxi ci digg ville bi ci la jaar ci kaw taxi bi ñeent ñoo ci dee ci boppam wallahi lazim da gis malien boo xam ne man su may voyage bi par dawal da ngay gis malien boo xam ne billaay fooy du am xala dara du am du am lumière te pourtant dafay romb gendarmerie romb police yaa ngi dégg ñuy def lu leen neex ci tali bi am na benn jour benn malien moo ma nar a wàcce ci kaw tali bi dama daw jiitu ko ba police u caajaay euh, nga baal ma gendarmerie caajaay chaque guddi dañ fay taxaw chaque guddi danañ fay taxaw ma taxaw na leen gis ngeen camion bii di ñëw danger bi mu ànd ak kenn mënu ko wax waaye ba ma leen ko waxee man taxaw naa ñëw ñu arrêté ko waaye dañ koo bàyyi mu dem il faut tamit suñ takk der yi il faut tamit ñu dimbale ñu ci côté boobu parce que liñ leen may dafa bëri maliens yi liñ leen may ci camion yi li ñuy def dafa bëri xolo fii la fii la affaire bi am xolo fii la affaire bi am xolo gaa yaa ngi nii gaa yaa ngi nii police a nii yaa ngi dégg ah fii la affaire bi am dafa métti dafa metti vraiment vraiment métti na quoi métti na ba ci kanamu yàlla xolo fii la affaire bi amee kenn xamatul malien yi lan la ñuy def xolo police a ngi nii gars yaa ngi manifesté wu ci kaw parce que malien yi sonal nañ ñu ñu ngi rey suñu nit ñi surtout ak yoonu caajaay bi soo ko jëlee waaye ngir yàlla war a suuli nañ ci taxaw ñu taxawal ay mesures yu wéer yu leer nañ leen ko taxawal def ko ñeenti nit dee noonu soo gisee dafa ñëw yéeg ci kaw taxi bi yéeg ci kaw taxi bi loolu dafa garaaw ah dafa garaaw ci kër de Kaolack a ngi ni kër de Kaolack a ngi ni ci digg kër de Kaolack camion bi fii la woon xoolal kër de Kaolack a ngi nii xam nga ne lii garaaw na garaaw na garaaw na gis nga ah gaa yëpp mer nañ ah vraiment vraiment ñun xamuñ ci xamuñ yàq benn yàq nañ suñ tali bi ah yàq nañ suñ tali bi ah benn yàq nañ suñ tali bi ñaareel kenn xamut ah xoolal xoolal gaa yaa ngi nii di liggéey fii xoolal ñi ñëpp accident bee ko indi ah vraiment vraiment vraiment vraiment ah